digtale askan wi TPTV suñu momeel waaw kay tabarakallah ñu ngi leen di bu baax a baax kon incha allah dañuy dalal suñu gar yi rek ñu ngi doog a yegg si di xaaj Pape Serre jigee ba jaxaay tabarakallah nu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu waa jaxaay yëpp kon xam naa incha allah xaaj Pape Serre waxtu yi daw na léegi dañ lay bàyyi rek nga nuyoo incha allah taala ñu dugg ci yëf yi bismillah وقد توسلت يا رحمن يا سختي يا مهنيا دافعا انذري إيه اجمعين سلام ربنا دائما أنا صبي ربي بأسمائك الحسنى وعاسمعنا الأنبياء والرسلا سلكي تسليما على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عودة بنيان محمد أحمد معي وحد سيرنا نبي مرحمة تواب ومرد على نبي وعلي لينا ربنا دائما تيب تيفي جيران ثم المقافي الفائقات تبتو وكسرها وسكون أجمعين سلام ربنا دائما صفي والعاقب المقتف حصار ما سبقوا من أنبياء ورسل كل ما على نبينا أجمعين سلام ربنا دائما عاد Maodo tagg na yoneen zaadal mawaayi bu asma anwara tabaan alal irfi ilayya muntahal kalimi kan moo fi gën a bëgg yoneen ajmaina asalaama ah, rabbina daiman تبتي بتيان ثم بن عوف وساد سابيا لخي تكو سابيا لخي تكو سابيا أبو بكر سابيا بالله أين أمر سابيا wallaay ay na Usmaan Saar wallaay ay na bi jaaral jaral na mu jaaral na xoye ana soppe yi Mamadu pour na bi jaaral yaa Rasuulallah ku mu jaaral na xoye na xoye jaaral ana waa TP TV kum ko rasulallah yaa rasulallah nu gën rasulallah yaa rasulallah waaw yaa rasulallah xalifa njaay man de yow laay bégal yaa rasulallah yaa jara magal tefeti bi yaa rasulallah yor yoru nabi fi tefeti bi lay xewe yaa rasulallah yaa jara magal ay waay yaa rasulallah Téfé TV Téfé yi laay bëgg yaa rasulallah yaa jara magal ay waay yaa rasulallah rasulallah yaa rasulallah woo yaa rasulallah yaa jara magal ay ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah nabi barakallahu mbokk yi mi ngi noonu tabarakallahu sunu gan xaaj pap ser ñu dalal ko ko tabarakallahu mbokk yi kon yene ko deggalo waaw lool nak nuyoo bi la won rek inshallah taala nañu ñep xaar ci kanam tuuti inshallah taala ñu gën a dugg ci yëf yi waaye loolu nuyoo bi rek la kon nag tabaarakallaa mbokk mi ngi noonu kon nag xaaj Pape Serre dama lay bàyyi nga nuyoo mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo lay seetaan bisimilah. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu képp ku nuy seetaan rek jaaree ko ci télé bii di TP TV Tivaouane Peul TV ñu ngi lay jox suñu loxo xol di la nuyu di la wax asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mm-hmm. di nuyu. waa TP TV yëpp. Mhm. di ko jaaree ci oustaz Khalifa Ndiaye. xam ni suñu xarit la suñu lépp la. dëgg yàlla jotaay bi yàgg nu ko bëgg waaye nag. tey la ko yàlla dogal. ak ni ko yàlla dogalee nii. kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax invitation bi. ndax nit ku la yëg bàyyi fi ñëpp invité la. Mhm, kooku amoo fayam. ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax. ah au passage nag di nuyu waa Jaxaay yëpp. Mhm. tabaarakallaahu di nuyu daayira ya fa nekk yëpp. di nuyu nag sama daayira bopp muy xayriwal baraka. xam ni tey nu ma mel rek ñoom ñoo ko def ci man tabaarakallaahu di nuyu suñu kilifa xaaj Njaga Njaay Jamil mm-hmm. nga xam ne bu nu teewee fii rek ci ndigal bi lañ fi ñëwee di ko nuyu bu baax baax a baax mm-hmm. di nuyu waa jaxaay ñëpp tabaarakallaahu di nuyu ñi ma àndal mm-hmm. muy xaaji xalifa ngiraan ak Souleymane li nga xam ni ñoom it dañoo bàyyi seen yitte yëpp ànd ak man dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu daal tabaarakallaahu ñu yemale foofu nuyoo yi rek incha allah ba ci kanam jërëjëf waaw kay xaaj Pape Saer allah ñu ngi lay delloo nuyoo yooyu bu baax baax baax di ziar waa Jaxaay yëpp ak li ko wër di nuyu ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu daayira xayru wal baraka di leen ndokkeel ci bis bi tey di 8 décembre tabaarakallaahu ni ma ko doon waxee sànq anniversaire Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour tey fa tabaarakallaahu lu waay wax te waxoo Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour rek bu boobaa yow waxoo dara tey ndax ñoo tey ñoo xewle di profité nag di ziar Serigne Ndiaga Ndiaye jëmil fa mom mi nga xam ci ndigalam ngeen fi ñëwee ñu ngi koy ndoké ci bis bi diko ñaanal yalla defal ko guddu fan ak wër ak wérle nuyu sa gan yi nga xam ne ñom nga andal sëñ babakar ngiran tabaarakallaahu sëriñ sulayman li ñu nuyu leen ziar leen kon xaj Pape Serre comme ko waxtu wa ngay daw dama bëggoon rek nga fo fo fo jaar rek baax na soppé yépp ñu ngi lay dégg inshallah bismillah bisimilah. Jamil. ku sopp Jamil defal ma ni mooy sayidi jamil alhamdulillahi sant yàlla war na ci jaam féeteeg jamil doy na mbég ci wàllu tijaam sayidi jamil jàppoon na kóllëre moom ci képp koo xam ni kii gëmoon na Sëriñ Babacar ci yoonu tiijaan fonku tariixa bi lool lépp lu mbay yore woon sekere xutbu bi fii ci ëllu tiijaan donnee ko ci sunu maam mi doon wasilaam bokkewul ak sekkereem ci Cheikh Tidiane kuy sa baay ñu ne Serigne Babacar te mbay du moroom mbay du maas mbay du moroom mbay du maas bu ko def dendandoo Serigne Babacar Serigne Babacar kii mënal gaañi mëneek ñoom ci yoonu Tijaan di Banga Sidi baa nga faas billaay ana soppey Sidil Jamil Mustafa Jami Seydi Jamil taawu Ababakar bilaay Mustafa Jamil mu xëyee ko jur bilaay Seydi Jamil taawu Ababakar bilaay Seydi Jamil mu xëyee ko jur bilaay ma wax la lan moo xewoon bilaay ba nu koy tudde Mustafa bilaay yu Mansuur si sang la ban koy tudde Mustafa bilaay kuru su mam maw dala jabilite bilaay lan ko ci baaram boo mu dëgër dëgër dëgër dëgër Mamadou te Moustapha Jamil te bilaay ci la maamam Malick Sall naan bilaay Maodo jox ko lii mu lay laaj Maodo naa ko jox naa ko ko bilaay bis bu keroog la yor wéré di Cheikh bilaay نلن اسكي سيد الجميل اسكي نلن اسكي سيد الجميل اسكي سيد الجميل آه سنگ بانگ فاس آه سنگ بانگ فاس جميل ye ko jur bilaay jaaraama allah sang baangi sang baangi sëriñu zimmalaas bi sëriñu iñooyi sëriñu tepeti bi sëriñu xalifa njaay sang baangi sang baangi way naa la sur gañ naa yaakaar naa la jox naa la sama xol kenn du yow ci moom war saa ngi sëriñu iñoo yi sëriñu iñoo yi taaw la ci baatin taaw la ci zaahir taw si jël jamil bi la yaay sunu wasiila waaw waaw yow la nu duppee borom ñaari gaa bal aw mi jikko yi turo ndom boole tarba ak dee tekki gag lewet ga xol ba mel ni bergaan iya, nah, yenn jikko yi turo ndom boole tarba ak dee wallaay tekki ga xol ba mel barakallahu barakallahu barakallahu fiikum yal yalla yàlla ya barkeel tabarakallahu xaaj Pape Seer bàkk nga sunu sëriñ ba Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha tabaarakallaahu nga xam ne doy na rek ci cër di taawu sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu bàkk nga sunu sëriñ bi Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha moom laa doon wax léegi borom baatin ba Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha tabaarakallaahu ah ki nga xam ne moo toog wuutu sëriñ Babacar radiyallaahu taala anhu toog wuutu sëriñ Babacar waaye xolo demul dikkul te lépp di dox moom Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha waaw dinaa faral di wax nag. toog lépp di dox moom ah mën naa ne ci moom la tàmbalee waaw ndax tabaarakallaahu moom kat yàlla defal na ko loolu ndax wax naa ko léegi Cheikh Seydi Mouhamad Mansour nee na bu ñu yaakaar ne Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha dafa toog faas rek xool faas ba mu neex ko mu toog fa waaye Cheikh Seydi Mouhamad Mansour di leeral ni Cheikh Seydi Mouhamad Moustapha toog gi mu toog faas sakana Dakar bi izni say xiiwaali di saydat bi sukaanwaa bi amaani waaw yéen ñi nga xam ne yéenay Cheikh soppey Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha sëñ Mansour borom daara ji nee na lu tax mu toog faas moom Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ci ndigalu sëñ Babacar la fa toogee ndax sëñ Babacar moo ne ko toogal ma faas dañ danañ koy way sax toogal ma faas ba mu jot nga ñëw mu toog fas fa tabaarakallaahu demul dikkul moom Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha waaye lépp di dox fa tabaarakallaahu ba tey yàlla dimbali ko fa tabaarakallaahu li mu réalisé mu réalisé ko ah ba tey yàlla dimbali ko mu am taaw bu mel ne sëñ Mansour Sy Djamil fa tabaarakallaahu sëriñ union bi ni ñu ko doon waxee sëñ Mansour Sy Djamil moom taxawaay bi sëñ Mansour Sy Djamil mi nga xam ne international xam nañ ko ci taxawaayam tabaarakallaahu fu mu dem rek fa tabaarakallaahu sagal maamam Sidil Hadji Malick sagal maamam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu Cheikh Serigne Mouhamadou Moustapha ak tabaarakallaahu rakkam yu tedd yooyu ñu ziar leen ziar suñu Serigne Serigne Mame Assi Jamil tabaarakallaahu fii ci gàddaay ah Serigne Ahmada Sy tabaarakallaahu Jamil sunu sëriñu bopp moom ñu ziyaar ko ziyaar mbooleem njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil kon euh, tabaarakallaahu mbokk yi xaaj Pape Seyra ngoog tabaarakallaahu jige ba jaxaay anniversaire Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour waaye xaaj Pape Seyra xam naa waxtu waa ngay amoon lu ma la laaj tuuti rek xaj Pape Fer booy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah lan ngay yëg xaj Pape Fer waaw fa xaaj xalifa yonent bi moom bu ñu koy tagg dëgg yàlla du yëg lu dul mbégte mm-hmm. ndax ki gën ci li yàlla bind boo koy tagg dëgg yàlla mbégte rek nga mën a yëg sa xol mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nga xam ni tey lu ñu am ci yàlla lu nu am ci àdduna mm-hmm. lu nu yàlla mën a teralee mi ngi koy jaarale ci moom tabaarakallaahu mm-hmm. buñ koy tagg daal yëg mbégte rek la ñuy yëg ak contentement ak sawar lool ci tagg mm-hmm. tabaarakallaahu waaw kay beneen bi itam mooy dama seetlu ne bu ñuy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy taggal yonent bi ñoom a général ñooy jug ñooy jaayu ñooy génne lañu am joxe ko fa tabaarakallaahu jaayu fii wane seen cofeel ci yonent bi mais est ki nga xam ne mooy tagg yonent bi moom est-ce que dina yëg loolu. dina yëg loolu. Uh-huh. dana yëg ndax tagg yonent bi balaa gën a neex dëgg dëgg dëgg. Uh-huh. ñu ngi koy defal sax ñoom it ñu yëg ko. Uh-huh. ndax ci yëg boobu ñu koy yëg. yow sa yëg-yëg day gën a kawe seen yëg-yëg. dëgg la dëgg la tabaarakallaahu ndax sama kilifa. fële ca Tiwaawan di Paa Maxtaar Ndiaye. koy nuyuwaale moom it. dëgg la damay wax ni booy dem booy dem di tagg yonent bi nanga dem fu ñu la bëggee. na nga dem fu ñu lay dégloo. waaw ndax temps dafa cher te nit kuy dem mhm. nay dem fu ñu koy jégloo nay dem foo xamante ni bu fa demee dëgg la fa tabaarakallaahu li mu mhm. bëgg yëpp dana ko am dëgg la mhm. kon nag di taggal yonent bi ñoo xamante ni dañuy jug di jaayoo di joxe seen dërëm loolu da lay gën a yokk yow encouragement dëgg la macha allah gën a encouragé dëgg la macha yàlla yàlla barkeel ndax kat ah samaam Seydi Xaaji Malik moo ne wa qul min al bidai mustaxsanaati xiyaamun inda zikri tulu yi samsi lam tahim loolu la samaam Seydi Xaaji Malik wax tabaarakallaahu borom gaay ak tiwaawan ah borom parasol bi ah ah alamu sufiyu attaxiyu xaamili li waaxi tarixati tijaani mawlaana sidil xaaji malik nee na kat bokk na ci liy wane ne yow bëgg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu ñu dee tuddee turam bu sell ba samaam nee na nag nga jub waaw inda tuluyi samsi lam taxi bi fenku jant bi nga xam ne dootul soo mooy yonent yi di ko yàlla feeñalee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba nii ba àdduna di tukki turam bi dootul fay waaw samaam nag Seydil Xaaji Malik nee na bokk na ci liy wane ne bëgg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu ñu ko dee tagg di tudd turam ba nga wane sa cofeel jug jaayu tabaarakallaahu la nga am nga joxe ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam samaam nag nee na bokk na ci liy wane ne bëgg nga yonent bi rawatina nag yow mi ne yaa koy tagg waaw ndax kat na ci liy wane bëgg nga yonent bi mooy di ko tagg waaw ndax am na ñeneen ñuy way ñeneen ak yeneen ak ñeneen gisoo Cheikh Mouhamad bu Seydi sax bi ñuy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa akramal xalqi maali man aluzu bihi siwaaka indal xuluudi xaadisi xamibi dégg nga wala yadi xa rasulullahi jaare ko bii isal karimu taxallaa bis mu tax bi waaw nee na kat ëllëg yomal xiyaam aw ma kenn ci koo xam ne dinaa wéeru ci moom ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom laa yaakaar ma wéeru ci moom ndax koo yaakaar kamu yaakaar kamu yaakaar kamu yaakaar kenn la yaakaar mooy sajiduna Muhammad waaw ëllëg yomal xiyaam koo yaakaar ne ca kanam yàlla dina fa mën dara soo demee danaan la nafsi nafsi sama bopp tey sama bopp moom moom moom doy na ma kenn rek moo naan ummati ummati ana sama xeet ana sama xeet wi ndax moom yonente bi alayhi salaatu wa bu dekkee gisul dara gis jibril kase day yaakaar ne bi dañoo dem safara mu naan jibril ana sama xeet bi baadu yàlla dafa ma nax jël sama xeet bi dugal leen safara moom ah, ah, ah, yàlla jibril naan ko déedéet sag bi tey kenn demagul safara kenn demagul ajal yàlla atteegul kenn dégg bu boobaa nag gars yi bu ñu ñëwee ci yeneen yonent yi nga xam ne yaakaaroon nañ leen ne kat ñoom mën nañ ci kanam yàlla dara mais mëpp ku ci nekk danaan ummati ummati tey sama xeet de moo doy kenn rek ah nafsi nafsi tey sama bopp moo ma doy kenn rek moo naan ummati ana sama xeet bi ah mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax sel xajab las baax ne woon safi ul ah, mooy ki nga xam ne tabaarakallaahu mooy rambu borom bàkkaar yi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko yaakaar kamu yaakaar kamu yaakaar kamu yaakaar kooku la yaakaar mooy turandoo Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha moo tax sànq maa ngi koy wax waaw kasamil adanaani loolu la daa daara ji wax nee na boo bëggee xam Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha nee na comme turandoom ko jóg si ko ko jóg Adnaan te mooy yonent a alayhi salaatu wasalaam ndax Mouhamad Abdoulaye Abdou Moutalib Haatim Abdou Manaaf Xusay Kilaab Murata Kaab Looy Haalit Fiiri Malik euh, Nadar Kinaanata Xusay Mata Mudrikata Ilias Mudar Nizar Maat Adnaan mooy maamam nee na ki nga xam ne boo toppee ay maamam da ngay daanu ci addunaan hmm. ah mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom daara ji nee na turandoom bii Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha moom rek la nduru kon xaaj Pape Cheikh dama lay bàyyiwaat rek insha allahu taala nga nga nga nga kiiwaat rek ah tabaarakallaahu tey ni ma ko waxee Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour ah 8 décembre ñoo bokk benn bis yàlla boole leen Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha doon magam waaye doon sëriñam ndax mboolem lu sëriñ Babacar si njaboote ak alxaaji ah alxaaji Mouhamadou Mansour maam Habib ñoom ñëpp dañoo jàpp Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha muy seen sëriñ waaye jàppee wuñ ko woon muy seen mag waaw kon nag tey ñoom la ñuy fàttaliku incha allahu taala kon xaaj Pape xamna naa foo duggaat rek inshallah taala. xamna nak dañuy barkelu ci xasida bi nga xamanteni maam Abdou Aziz Dabaax defoon na ko ci Serigne Mansour ci borom daara ji. tabaarakallaahu mhm, di ko ci way way yu neex yoy mhm, mhm, ñu barkelu ci rek comme temps bi xol wa wa wa ma sha allah bisimilah. man suuru qad walitum sirral khilafati mawrida dama ah, ah, ah, معاني مصطفى مريدا borom daara je أراكم من سوء ما محمد منصور من سر وآدابا وقلت سياسة بشرى

daara jàngoo. looloo yi jaadu. waaw waaw noonu de. dama sëriñ bi la ak Baye Ngor. mu baax Baye Ngor. nit yàlla baax borom baatin daan de. radiyallahu taala anhu. sirral ilaafati mawrida waa TPTV Mansour Sane tal yàlla cantu gu ñëpp xam loolo ili jaadu defal bi duni tawaani bushraakum ruqaan wëlintum walaay sirra ilaa fatiha ah. borom daara ji nit ñaa ngi lay santal ilaaha ta daima ndax lii mu doon li la may bilaan usaane ana ñu bëgg borom daara ji wallaay bàyyi sëñ Habib sirran baayu mam si nit ñaa ngi lay ilaa xata daima تقييم طللا مي بلان أوزاني بشراكم والنيلتم سر الإلافة موردا زمعاني ah mbokk yi defe naa ah liñ ci am bëriwul waaye yaakaar naa fépp fu toog ah, di jullit fépp fu toog di taalibe Seex fépp toog di taalibe Seydi Hadji Malick tabaarakallaahu yaakaar naa tey bég la ci suñu gan gi di Hadj Pape Serre ci lim ñu indil tabaarakallaahu ah kon nag tabaarakallaahu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla sàmm te aar tabaarakallaahu ci barke yonent bi Hadj Pape Serre xam naa li ñu defee ci waxtu bëriwul lan moo nekk projet yi. waaw projet yi nag tabaarakallaahu balaa ma cee wax moom bëgg naa comme nga may tëj. Mm-hmm. ma nuyu sama yaay ja ca jaxaay. waaw kay ma yaay Ami Guèye. maa ngi koy nuyu. maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax. di nuyu première dame. Aminata ah. Gaye ah, sama soxna. moom it jox ko wàccuwaayam fa tabaarakallaahu. di nuyu soppe yëpp. Mm-hmm. tabaarakallaahu. Mm-hmm. ñu ngi bég ci ñoom bu baax a baax a baax. ah xaaj xalifa xalif euh, projet yi nag moom. tabaarakallaahu yëpp a ci kanam ndax am nañ ay single yo xamanteni war nañ ko génn ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam inshallah sallallahu alayhi ngi ci waccay waye nak eh, ku am kilifa mhm. bu la diggé rek togal xaar ko ndax mën naa dem ba dernier moment mhm. do ko gis waye nak ñun dañu am kilifa mhm. te suñu kilifa moy haaj ndega ndjay Jamil inshallah bis mu ñi ci joxé ndigal rek daam ci dox bu baaxa baaxa baax projet yi nak yi nekk suñu kanam moy bëgg nunu képp koy julit nekk ci aduna bi fa tabarakallah nga xam kan mooy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. te mu bi mënuñu ko xam lu dul ci suñu way yi mm-hmm. waaw ndax Serigne Mansour Sy Djamil damay dégg ci moom muy wax mm-hmm. ni dafa am ay naaru libaane yoo xamante ne dañoo nekkoon ca Jadda waaw nee na ñoom dañuy seetaan Sénégal bu nit ñi di gàmm nit ñi ni ñuy daanoo tabaarakallaahu nit ñuy daanoo ci bu ñuy woy woy arab yi te woy ci arab lañ koy woy te nit ñaa ngi daan te ñoom xamuñu lan la ñuy wax mu ne loolu da koo jaaxal sëñ Mansour ne ko loolu bu mu jaaxal ndax dafa am réflexion yoo xam te nit ki da koy judduwaale te boo juddee ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fekk say maam di ko def même boo xamul lu ñuy wax buñ ko laalee rek te mag ñi ni ñuy bindee seen xasida yi am na leen lu ñu ciy làmbaale ci biir loo xam te ni cofeel bi foo jaar yëg ko loolu nag Sénégal rek nga koy gis tabaarakallah ndax boo demoon tey ca dëkki naare di fa di fa woy wolof ñoom duñ ko yëg duñ xam li ngay wax mais duñu yëg li ngay wax tabaarakallah kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax waa TP TV di leen ziyaara leen ñaanal yàlla télé bi fii tele yu mag yëpp nekk yàlla na ko fa yàlla féetale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy dégg ci àdduna bi yëpp ah xaaji xalifa di leen bàyyiloo xel nag suñu mm-hmm. benn programme boo xamante ni mm-hmm. ñii may àndal di xaaji xalifa ngiraan mm-hmm. ñoo koy def fële ca jaxaay incha allah muy incha allah le le 16 le 16 décembre incha allah fee ca jaxaay inte 17 boo ñëwee ba ci jumaa ji rek ñuy sargal nag suñu yaay suñu yaay Fatou Fall tabaarakallaahu yaayu Assane bi nga xamante ni mooy secrétaire groupe soppay xalifa ngiraan mm. ñooy def programme boobu tabaarakallaa ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp waa jaxaay ñu ngi leen ci woo incha allah le 16 à partir de 17 heures mm. bëgg nañ ñëpp ñëw fa incha allah man mii seen mbokk xarit Pape Sayar danaa fa teew incha ndax ñii samay xarit lan fu ñuy dem rek ñooy ànd fa tabaarakallaahu ñu ngi ciy woo ñëpp daal fa tabaarakallaahu jërëjëf tabaarakallaahu waaw kay yàlla na yàlla barkal xam naa tabaarakallaahu xaaj Ibrahima dañu koy jéggal rek ndax télévision moo demee noonu tabaarakallaa kon ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokk yëpp yal nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm ndax itam mm, génn ko la gudd na waaye loo ca laal rek borom yëpp kon nag fa tabaarakallaa ñii ñooy seen lépp kon nag tabaarakallaa yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm insha allahu taala kon xam naa xaaj parteer ci euh, lu gàtt rek yaa maj maxal baxreen ah si alxaaj Abdul Aziz Dabaax di jox Seex Seeni Mouhamad Mansour xilaafa gi waaw naan ko ko busraakumu waaw busraakumu ah xat wal di tumu ah waaw busraakumu mansuuru xat wal di tumu siral xilaafati mawrida zamaan waaw ne ko kat yow Cheikh Sidi Mouhamad Mansour bëgg la ci kat ñu ngi lay jox xilaafa Mawlaana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif waaw xaaj par seer ñu ko alxajab bi waxee busraakumu mansuuru xaat wal di tumu waaw kay sir al xilaafati mawlidan zamani. jengen Al alxaaji abdul aziz sëriñ bi nga xam ne ku ñàkk ki ñaan la alxaaji abdul aziz Dabakh sëriñ bi nga xam ne fa tabaarakallaahu rafet loolu waaye lu mu rafet rafet rafet rafet rafet xol ba moo ko gën a rafet moom alxaaji abdul aziz Dabakh nekat yow Cheikh sidi Mouhamadou Mansour méngale nañ la lan lañ la sir al xilaafati xilaafa Mawlana Seydi Ahmada Tidiane. Mawidan Zam'aani. yow li nga xam ne yow Cheikh Sidi Mouhamad Mansour yaa naroon ki nga xam ne gars yi bu ñu mënee ci yàlla yaay ki nga xam ne yàlla nii naan dal yow Cheikh Sidi Mouhamad Mansour. Mansour santal yàlla cant bu ñëpp xam. dégg nga Alxaji Abdou Aziz na borom daara ci santal yàlla maa ngi profité di nuyu Serigne Moustapha Mbour taalibe Serigne Mame Malick Sy la maa ngi nuyu bu baax. ak sëriñ Ndiaga Fall tabaarakallaahu sa yëmbal taalibi sëriñ Maam Malick si maa ngi nuyu bu baax a baax a baax bu Seex Seydi Mouhamed Mansour dégg alxaji Abdul Ali ne ko nag bu la yàlla defalee loolu ah loolu kat amoo doo dara dara dara loo ci teg lu dul sant yàlla góor gaa ngoog alxaji Abdul da baax borom bi jaaw bu rafet ba bàyyi sëriñ Maodo si da baax mm. sëriñ bu ñàkk ki ñaan bi alxaji Abdul Ali da baax waaw loolu lañ ko waye ne ko sëriñ bu ñàkkee ki ñaan bii moom alxaji abdoulaye baax mooy sëriñ bi nga xam ne fu mu gisee lu rafet dana ne lii rafet na fu mu gisee lu ñaaw dina ne lii ñaaw na waaye tabaarakallaahu dina ko rafetal ba mu rafet moom alxaji abdoulaye da baax Mansour santal yàlla cant bu ñëpp xam ndax bala ngaa sant ah bala ngaa sant yàlla da sant nit ba pare waaw sëñ Mansour borom daara ji alxaji abdoulaye da baax ne ko li la yàlla defal doon na loo xam ne coono mayu ko doon na loo xam ne cër mayewu ko doon na loo xam ne doon sa ci Seydil Hadji Malick ko waaye xam nga lan la mooy lii la yàlla jox kat yàlla mooy xool ka mu neex mu jox ko ko kon sëñ Mansour Borom Daara ji santal yàlla ci ne la yàlla jox. loolooy jaadu defal bi dooni tawaani. dégg nga Borom Daara ji nee na ko sant bi nga sant yàlla bul toog naan damay xaar ba ci kanam ma sant ko santal yàlla léegi ndax kat lii la yàlla defal bëri na ñoo xam ne bëggoon nañ ko. bëri na ñoo xam ne su leen ko yàlla defaloon kat ah fu nekk danañ fa tourné di sant yàlla waaye borom daara sama doom ji yow la ko yàlla defal xilaafa Mawlana Sidi Ahmed Tidiane ah man di di di sa baay di alxaaji Abdoulaye sa baax ma dem ba nar a dem ñi nga xam ne ñoo ko yoroon yor fi ne kat yow lañ ci doy ah sëñ Mansour borom daara ji kat santal yàlla sant goo xam ne bii du ni tawaani buñ ci yeexantalu santal yàlla léegi cant goo xam ne tabaarakallaahu am na tàmbaliment waaye amul dayo yow borom daara ji ku fi gën a bëgg Serigne Mansour borom daara ji borom limousine yi borom drapeau yi borom ma dikk ak ma dem borom saawaay loo teg borom daraja ji borom daara yi ku fi gën a bëgg Serigne Mansour Mansour nit ñaa ngi lay cantal ilaa xata daayiman ndax lii mu doon li la defal bi du tawaani am na loo xam ne daal bu la ko yàlla defalee ndax kat xilaaf ak Mawlana am na tiijaan du ku nekk koy yor tarixa seex du ku nekk ci dugg sëñ ka nee na wa kam unaasin tamannaw bi suluki ala uslubihi ma qada man xaala wa sañ sëñ Babacar nee na nekk ci tarixa bi sax di wedd salaatul fatihi nee na du loo xam ne yow daf lay neex nga bokk ci waaye kat yàlla moom lay soob moom yàlla mu boole la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor tarixa bi ñoom lay neex tabaarakallaahu ñu demandé yàlla mu boole na ci rawatina nag xilaafa Mawlana Sidi Ahmad Tidiane borom في كل خطر من الأخطار aqtari محمد مزايا وبلدار بلدار الزوايا هذا الذي منغ الاخلاق تنده من البرايا عجيب المرء افواه تهين لين خلقا وفي خلق له محبة سيخ في محياه يا سالكا صنان الحرم الذي فرقت بالاخبة والاقدام من واو رجل الارض لا تكذب بذا ابدا ان المنائل تهمي من المزايا ورد من اصبح لا تكذب بذا ابدا إن المنايل تحمي من مزايا أنا إلى أوعي تحمي من مزايا شيخ الخليفة ريمان إلى إمي من خليفة أو أشبه الوبل في آفاق منعمران لا أصبح الناس قرق في جدوى أي في آفاق منعمران لا أصبح الناس قرق في جدوى فيه جدوى فيه جدوى ليمين بيرون سيحنا كجو فيه جدوى يبي جدوى هواي أتشي أتيجان شريفنا بإمامة مكتوم تاج العارفين مكتوم أرزاق المكتوم تاج العارفين دفلني نمكن برزاق المكتوم تاج العارفين أي مكتوم برزاق المكتوم يا رام زين الحاج مالك سيد يا رام زين الحاج مالك سيد ci ngalam sidil aaji malik si danga naan mu darrisan kulla ilmin kaana mundarisan baynal madarisi bi baana usuda jaara sidil aaji malik si cheikhul xalifa babakar si yow yaay borom leen muy maam xalifa ku fi gën a bëgg sëñ Babacar maam xalifa Babacar Si yow yaay borom leeri maam xalifa sa jamono amul beneen xalifa maam xalifa وإنني قد كنت من أهل النار ومسكني بها لدار أنداري إثنان أربعون قل ذاك العذاب لنمرتي زاري إذا رمت المدد رمت إذا رمت مدد رمت مام خليفة بابا كرسي ñi nara baax yaay seen sëy maam Xalifa Muhammadu Mansour Alaaji kooku may baay sëñ Mbay Mansour turandoo borom daara ji Muhammadu Mansour Alaaji Mansour mooy baay sëñ Mbay Mansour dana na taw dal jaalaalaati خلقكم سلمانيا مجيب القوم سود سود سود والبايا محمد منصور الراجي كوكو باي سجم منصور ثم صلاة تسليم إلى الله أخي البريتي حقت ما تحيا وعلى أصحابه النهى والنهى والكل يخشى ما شاء الله ما شاء الله بارك الله يلا يلا بارك الله كون خمنا حاج إبراهيم Euh, li des ci waxtu wi rek boo mënee ibbi ligne bi incha allah mbokk yi bëggalante ak ñun incha allahu taala ñu ngi leen di xaar nuyu nañ waa sukaabe yëpp fa tabarakallahu nuyu waa ñaag nuyu waa lagrose nuyu waa jaxaay fa tabarakallahu nuyu waa tiwaan pël yëpp nuyu waa malika fa tabarakallahu ak li ko wër ah nuyu fa tabarakallahu sunu sang boobu tabarakallahu di Serigne Ndiaga Seck di leen waat suñu xadara boobu nga xam ne mooy la am mooy am la 15 di àjjuma bii di ñëw incha allahu taala ñu ngi ciy invité ñëpp ndax tabaarakallah bis la boo xam ne bisu ñaan la bis la boo xam ne tabaarakallah bisu Cheikh Tidiane Serif la radiyallahu taala anhu kon ñu ngi ciy invité ñëpp incha allahu taala man bi bis boobaa man maa ngi fa incha allahu taala nag xadara bi ah 17 heures na ñëpp ñëw julli tàkkusaan 17 heures et demi incha allahu taala ñu tàmbali xadara bi bu ñu xadaraa ba pare incha allahu taala julli timis bu ñu jullee timis ba pare def cérémonie officielle bu ñu paree incha taala sëriñ bi daal di kon nañ ci ciy invité ñëpp incha taala ah le 24 itam suñu journée bobu nga xamné Serif mbay lay taw mo koy def tabarakallah di le 24 décembre maa ci ciy invité ñëpp bis boba itam tabarakallah man ma nga fa ah di di di doomu Serif Abdoulaye Thiaw Laye di setu sayna limam tabarakallah ñu ñu nuyu ko jox ko waccu wayam journée bi itam maa ci ciy invité ñëpp le 24 décembre bis boba itam inshallah taala ma nga fa maa ci ciy invité ñëpp tabarakallahu kon nak Eh, ñu ngi nuyu waat ñëpp nuyu Oustaz Mouhamed Ndiaye nuyu Oustaz Abdallah nuyu waa daara ji yëpp tabaarakallah sama waaj moom xam naa fi mu nekk tey bégg na di xaaj bëgg mbay tabaarakallah ndax moom boo bëggee mu yëngu rek wayal sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu kon maa ngi koy nuyu di ziar tabaarakallah ñëpp soppe yëpp di ziar Abdou Diam ñëpp di ziar waa YouTube bi tabaarakallah ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi di ko jaaree ci YouTube bi di leen fàttali rek li ma leen waxoon sànq waaw bu ngeen ko mënee seetaan bu ngeen ko seetaanee ba pare itam tabaarakallaahu daal di abonné ci chaîne bi TP TV l'officiel incha allahu taala ngeen abonné ci incha allahu taala di topp émission yi ndax loolu doon na li nga xam ne daf ñuy may doole kon tabaarakallaahu maa ngi jaajëfal ñëpp xaj pa tey bëgg nañ lool lool lool macha allah waaw ndax ni nga ko waxee léegi yàlla yàggoon nañoo bëgg nga ñëw waaye xëy na tey la yàlla àtte nga ñëw tabaarakallaahu ak ñu ko yàlla dogalee waaye nag ñu xam ne ah li li li li li borom xam-xam yi wax rek nit moom sax jour boo xëyee li nga war a def def ko waaye nag ni nga ko war a defee loolu ci loxo suñ boroom la la la aju kon xam naa Ibrahima nga ibbi ligne bi rek xam naa tey moom gars yi fi ñu toog moom seen yaram tey moom tàng na lool waaw am na ñoo xam ne leen rek lañ bëgg muy dugg dëggalanteeg ñun tey ñu ngi toog li ñu xaar kon nga ibbi ligne bi rek incha allah gars yi dugg dëggalanteeg ñun tabaarakallaahu ndax xam naa ne fi ñu toog bég nañ fi ñu toog kontaan nañ ñu nuyu ñëpp tabaarakallaahu ziar leen xaj pa euh, dafa mel ne bu la déggee ah xaj Pape Malick Mbaye ngay roy de waaw waaw léegi nag mm, boo fekkee yaa ngi tagg yonent bi doo ñëw rek tagg yonent bi il faut nga am benn njàngin boo xam ne fa ngay jaar ngir fa tabaarakallaahu xool kooku ni muy jàngee nga jàngee noonu jaar foofu ba fa tabaarakallaahu boo mën te yegg fi mu yegg itam yàlla dimbali la nga kawe te boo ci amee ngëm-ngëm am pas-pas sax yàlla mën na la dimbali sax macha allah mën nga cee am sax moo moom moom loo xam ne amu ko waaw ndax tabaarakallaahu mu ngi mel ne diggante sëriñ ak yow taalibe bi bul ñëw ci sëriñ bi jaayante ak moom di jàpp ne man kat mënumaa doon sëriñ dégg nga da jàpp ne man mën naa doon sëriñ soo jàppee ne man mën naa doon sëriñ ànd ak pas-pas ànd ak gëm-gëm ànd ak kóolute dégg nga nekk ci sëriñ bi di ko liggéeyal ah bés dana ñëw bu la sëriñ bi joxee di nga am bu la joxul di nga am waaw ndax kat rawate na tarixa bi moom noonu lay doxee démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee tarixa seex bi moom noonu lay doxee bépp mu xaddam boo xam ne yaa ngi jaayanteeg sa taalibe Cheikh nee na boo boo joxee muxaddam bi bu la joxee tarix yow taalibe bi Cheikh nee na muxaddam bi na génn sama digganteeg taalibe bi Cheikh nee na bu boobaa man maay jëflanteeg moom te bu fa bu boobaa bu may jëflanteeg moom lépp loo xam ne moom taalibe bi war na koo am su ko muxaddam bi xañee man Cheikh dinaa ñëw joxal ko ko sama bopp tabaarakallaahu lool nag am nañ ci ay misaal yu bëri xay na waxtu moo ko moo ko moo ko mayewul ci Cheikh Mouhamadou Xaali ak Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti tabaarakallaahu seen jataay boobu am na ay misaal yu bëri waaye li ma bëgg a wax rek mooy mënoo tagg yonent bi te amoo koo xam ne mooy sa idole moom ngay roy waaw il faut nga am koo xam ne moom ngay mooy sa idole moom ngay roy ngay xool ni muy taggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga di ko defee noonu tabaarakallaahu jaar ci yoon bi di xool nan lay defee ngay defee noonu ba tabaarakallaahu yàlla mën laa dimbali dafa la xaaj Pape Malick moom ngay moom moom ngay roy lu lu waral jankati bari nañ fi waaw ñom Cheikh Tidiane Bay ñi ngi fi hadji sambou mi ngi fi ah Sidi mbay tabarakallahu ah sidi mbay al hadji Dudu kenn mbay nga xamne ñom ñoy kilifa gaay yi tak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëttu kër maam al hadji malik radiyallahu taala ah tabarakallahu sa sa sa sa seri sa mag ju baax ji hadji Njaga Njaay Jamil Mot Njaay Jamil ñom ñep ñi ngi fi tabarakallahu ngay ngay ngay roy hadji Pam malik lu waral loolu nag li ko ci wax daanaka lu bëri sax ndax xamaa ne moom su may wax ci moom. Mhm. damay am yeneen yu ma yëg. ndax dafay lu ma am ci moom. macha allah waaw naa ko ndax li tax ma bàyyi ñëpp di ko roy. Mhm. cofeel goo xam te ne dama ko gëmbal la moo tax. Mhm. waaw ndax Pape Malick Mbaye mën a tagg yonent bi sallallahu alayhi ko mën a joxe cër la ko yaru waaw yooyu nag qualité yooyu bu ñu ko gisee ci yow. te man Pape Malick wax dëgg yàlla bi ma koy bëgg. bi ma koy bëgg yàgg lool lool boobu duggaguma sax ci ay way ndax dama ko daan déglu rek mm-hmm. ma koy déglu nag ba yàlla def ma jaawale ko Pape Makhtar mm-hmm. ci laa xamanteeg Pape Makhtar Ndiaye dem ba këram seeti ko mm-hmm. tabaarakallaahu Pape Malick nag li ñuy toog bari na li ñuy toog bari na waaye taxuñu miinante noonu Pape Makhtar daal laa gën a miinanteel ba di ko woowee sax sama papa tabaarakallaahu waaye Pape Malick Mbaye daal boo bëggee dégg dëgg wax dëgg yàlla man moo ma doy moo tax ma koy roy mhm. tabaarakallaa ndax tamit nit booy woy da xool sa baat mhm. ban air la méngool te yàlla def na ni sama baat airam la méngul mën mhm. naa woy air yëpp nag waaye nag sama baat airam la gën a nangu tabaarakallaa loolu it bokk na ci li tax ñu koy roy tabaarakallaa waaye ñëpp la ñuy roy ñëpp ñëpp la ñuy roy waaye moom dañoo dañoo féetewoo moom tabaarakallaa ndax amna way mhm, ah, mhm. mhm, ko di bari yo xamanteni amna am nañ seen air bop mais dañuy way airam deug la waaw nak lolu cofeel la buñ ko ëmbal di diko ko nuyuwaale au passage diko jox wàcc waye bu baax baax diko ñaanal fam nek yalla defal ko jamm ci barke nabi sallallahu alaihi wasallam sallam di ñaanal nak pa Maxtaar ndjay mi nga xamanteni ah, moma tette ci tagu nabi sallallahu alaihi wasallam bima ndax bi moma encourager moma moo ma encouragé xelal ne ma nangam ak nangam ngay def bo ci yag deug la di koy nuyu di ko ñaanal yalla momit it yoon bii mu jël yàlla na ko ci yàlla defal ndam lu kawe tabaarakallahu ndax Pape Malick dañoo toog ñun ñëpp mm-hmm. mu ne Pape Makhtar Ndiaye mooy sama carte d'identité mm-hmm. loolu nag bu ko waxee misaal la bu muñ jox dëgg la macha allah loolu day wane ni mhm. ku jotul ci man boo jotee ci pamaxtaar rek jot nga ci man man nag loolu tax ma wéeru ci pamaxtaar ñaar mhm, tabaarakallaahu loolu daal waral ñuy roy Pape Malick bay caat mhm. tabaarakallaahu ba ku ñu gis rek sopp ñu ci jaawale nañ ñu ba tàyyi waaye loolu yëpp joxeel la tabaarakallaahu jërëjëf xaaj macha allah léegi Pape Malick moom ngay roy xaaj euh, Pape Saer boo toogee ci tànt jàkkaarloog moom muy way wala nga toog sa néeg fa tabaarakallaahu jàkkaarloog muy muy muy way lan ngay yëg moom moo ma gënal mhm. toog ni jàkkaarloog moom muy way moo ma gënal lu ma mën a am tabaarakallaahu ndax am Malick moom waxuma la jàkkaarloog moom muy way waaye mu toog rek jàkkaarloog yow mhm. loolu beneen affaire la dëgg la nag muy way macha allah tabaarakallaahu macha moom ay wayam daf ma dugg lool dëgg la muy way wax dëgg yàlla leneen laa yëg mhm. tabaarakallaahu ndax anam bim koy defé tabarak mhm. allah ni ko ci sante nak bu baax diko geureu est ce est ce dama dajal ben dajatal ma erpa mal ala ya rasulallah ya afdalul wara yonen sallallahu alaihi wasallam mhm. fa anu fi dayqin shadid tarakumi فنحن في ضيق ولم نرجو فارجا ينن سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البقية خير رائم إلهي فجل أعلنا على حربة وآل اتباق سنة في التراؤم نعود عليها بالنواجس مثل ما به قال في عيسى ندرة هاشمي صلى الله عليه وسلم yàgg nañ ko dégg ci moom ndax bokk na ci yi bi njëkk a way tabaarakallaahu ñu ko ci bëggee lu bare bare bare boo maanaam ci gàttal daal xalifa mm-hmm. Pape Malick amuñu amuñu ci moom sago tabaarakallaahu dëgg la caatu alxaaji mbay doon dëgg yàlla la ñu ngi koy nuyu bu baax passage di ko ziyaare bu baax tabaarakallaahu dëgg la temps bee ñu xoj waaye konoon dana ba ngeen bëgg macha allah macha allah baarakallah ah, mu ngi noonu caatu alxaaji mbay doonde tabaarakallaahu nga xam ne moom bëri na ay soppe ndaw ñi tabaarakallaahu bëgg ko mag ñi bëgg ko tabaarakallaahu ndax ah daan na ñëw fekk borom daara ji toog ah tabaarakallaahu mu ñëw di waay waaye sëñ Abdoul Aziz Al amin daan na ñëw ziare ko mu ne ko caat waayal waaw ba daan na waay sax ci biir waayam euh, buy waay naan ah waay wi kat Al Amine moom la bëgg waaw kon nag tabaarakallaahu alxaaji pam Malick Mbaye ñu ngi koy ñaanal baax yàlla may ko gudd fan ak wér ak wér yàlla dëgëral ko ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi ñu xaar leen xam naa sax li ñu desee ci waxtu yi bariwul léegi ñu jëm ci tàggatoo incha allahu taala képp koo xam ne rek soppee Pape Saer nga wala di soppee émission bi macha allahu taala nga dugg bëgg leen teg ñun incha allahu taala ñu ngi leen di xaar ci émission bi di yor yooru Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye yëgal na xam Haaj Pape Saer bëgg nañ lool macha allah yàlla yàlla barkeel waaw li nga ci bëgg ci tag yonent bi yàlla yàlla defal la lu kawe sa njot yàlla sàmm la yàlla aala taxawu la gën a baat bi ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw ndax moom mooy ki nga xam ne li ma waxoon rek dangay wax ay waxam ah di ci bénéficié wu moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw da wax ay waxam di ci bénéficié wu da ngay wax li ñu ko wax di ci bénéficié wu waaw te waykat bi nee na sax au contraire saa yoo bëggee say wax neex boole ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw nee na yonente bi loo ko boole mu neex waaw mooy mooy mooy xorom ci cin waaw lekk gu amul xorom ah tabaarakallaahu loolu du neex jëfandikoo yonente bi nag mooy xorom ci cin waaw moom amul dara dara dara dara dara looy def loolu da nga ko boole yàlla faale la yàlla wuy la waaw ndax yàlla nee na man moom rek laay déglu waaw xul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uunii waaw su ngeen bëggee ba bëgg leen bëgg leen ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na su ngeen bëggee ba yëg ni bëgg ngeen ko rek jëratul ngeen di def benn effort wala ngeen di ñaanlu ndax saa yu ngeen bëggee yonent bi ba yëg ni bëgg ngeen ko rek yàlla nee na ah seeni mbir àddina ma defar ko seeni mbir àllaaxira ma defar ko waaw yàlla nee bu boobaa duma xaar sax ngeen am aajo di ma ñaan waaye saa yu ngeen am aajo man borom subhaanahu wa taala ndax man maay ki nga xam ne lépp xam naa ko su ngeen amee aajo ma faj ko man yàlla ci barke bëgg yonent bi bi ngeen ko bëgg waaw moo tax waaye kat bi ne yam dawul ma daxa kulla yawmin bi wasfin fii ka yaaman bi yusaanu kalaamu waaw yow yaay ki nga xam ne ku bëgg say wax neex daf ciy boole yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw saa yoo ko tuddee rek fa tabaarakallaahu ah nit ñi bëgg saa yoo ko tuddee nit ñi kontaan waaye fa tabaarakallaahu borom bi subhaanahu wa alaa itam moom loolu rek la bëgg ku tudd yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon nag tabaarakallaahu ñu ngi ci bégal mboolem ko sopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ñu dese ci waxtu bëriwul incha allahu taala bu ngeen duggee rek bégalante ak ñun ci yor yoolu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam tabaarakallaahu xaj Pape Seer mooy sunu gan tey jógee ba jaxaay ñu di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla guddal may ko gudd fan ak wér ak wérle yàlla sàmm ko aar ko yàlla taxaw ko fa tabaarakallaahu li mu bëgg ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla defal ko ko kon xam naa xaaj Pape Serre dangay ñëwaat ci beneen air rek xam naa bii la ñuy tàggatoo sax xam naa boo ñëwaatee ci air bi rek bu soobee yàlla après insha allahu taala ñu daal di tàggatoo bismillah xaaj Pape Serre wa xalifatu lil ahmadayni mm-hmm. wa والأسرار والإرفان نن تزلزل بعد وتخيرا فصفيتنا بالحق يا سمداني في جن بق سرين بابكر ماي خليفة الشيخ والمختار يا في دمر moo fi fajal diine ay daanam te ñépp la bu leen ko xiinal bu leen mbalax ba leen tamayee ba leen junjung yi ba leen mbaangoo ji way ko siyaal ku def ni yàlla nga gisee Serigne Babacar waaye kan moo fi gën a bëgg Serigne Babacar si ngistaloo mhm. ndamu woo nekkoo di wut ku la naw xanaa taxaw tembe tey digle ka def na la war ana soppey sëriñ Babacar mooy ki fi yor ak i dogal ami sañ-sañ ci diine jël yëngul kooku mooy si Babacar dana fulla am na fayda am teraanga te di ko joxe yëngul moo di ka ca barzaq tey jëflante ba tey kooku mooy ana soppey sëñ Babacar yi bu ñu sàggan mbele yéen mbokk TP TV ñun bu ñu sàggan ci baakaar ana soppey maam Khalifa Mbaye bu ñu sàggan ci baakaar waaw waxaay ku fi gën a bëgg maam Khalifa Mbaye si bu ñu sàggan ci baakaar mbay ku ci sàggan mbay ku ci sàggan mbay ku ci sàggan yor yoru nabi ku ci sàggan ku ci sàggan sàggan sàggan ku ci sàggan sàggan sàggan mbay noonu way mbay ba mu jiitoo mbay la ko jiital kii dafa ànd ak ñun bu ñu jàqee mbay bu nu tiitee mbay ba ko wooyee yéenay soldaari soldaari yéen a ngi liggéey yéen liggéey TV yéen a ngi liggéeyal yéen a ngi liggéeyal ndax booy liggéeyal bés booy faatu dangay neelaw xandar yeewoo taalibe Cheikh buy faatu dafay neelaw xandar nga lay doomi soxna kon bu ñu sàggan ku ci sàggan lii ku ci sàggan ku a sàggana a sàggan sunu yor yor gee eh sunu yor yor gee TP TV laay bégal ngir yónneen bi ku ci bëgg Serigne Babacar loxoy ñu màggal ñu noon tijaani ñu noon Xalifa Njaay laay bégal ngir yónneen ana soppay xalifa njaay ku mu jaaral loxoy ca kaw tijaan yéen laay bégal ngir yónneen bi ah bi mani TP a xew ci jamono laay bégal ngir yónneen bi yàlla na ngeen jëpp ca ñu leen di dégg fu ne TP TV laay bégal ngir yónneen bi ci bëgg Serigne Babacar loxoy ñu màggal borom leer gi tijaani ñu noon tijaani ñu noon tijaani ñu oh, tepe ti bi laay bégal ngir yónneen bi ana waati waawal pël seen ñaari loxo ca kaw tepe ti bi laay bégal ngir yónneen bi duma fàtte li nga ma defal man al amina bu leen ko fàtte di ñaanal Serigne Abdou yaay Amina yaay Amina ana soppey Serigne Abdou mooy Amina mooy Amina Serigne Abdou yoo amee fukki at ak juróom benn lu ko Serigne Babacar woo ni ko doxalal ala Amina fiik baarakallahu baarakallahu baarakallahu fiikum macha allah yàlla yàlla barkeel ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbooleem xasida boo xam ne yëkkati nga ko fa tabaarakallahu yàlla yàlla def ko leer tabaarakallahu defal la ko lii yàlla def ko gudd fan lii yàlla def ko wér lii yàlla def ko fajuk aajo macha allahu taala li nga bëgg ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla defal la ko yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ndax kat mooy rawwaay bi moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw moom la yàlla di déglu ci lépp ndax yàlla nee na wax naa ko léegi saa yu ngeen bëggee seen mbir àdduna baax rek bëgg leen ko saa yu ngeen bëggee seen àllaaxira baax bëgg leen ko sa maam xaaj Xaaji nag ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma may ma toftale xilaasu zahab yàlla nag ma may ma roy sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te nag roy sunnaam ah tabaarakallaahu day tegu ci bëgg ko saa yoo ko bëggee rek macha allah dina la yombal nga mën a roy sunnaam moo tax sa maam Seydil Hadji Malick loolu la fexe ba ji ko ci xoolu taalibe yi mooy ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw wax naa ko keroog waaw fan yële passé benn jotaay bu ma doon waxtaan ma ne kat maam Seydil Hadji Malick fexe na ba lii nit di am yëpp mu am ko waaye bi mu amee yëpp ba tele bi tàkk dafa puus waaw ndax bëri na koo xam ne bi mu ko amee ba taal télé bi fa tabarakallah dafa taxaw ci kanam waaye maam Seydil Hadji Malick bi mu ko taalee ba pare nag dafa puus télé bi mooy ah kan Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nag maam Seydil Hadji Malick Ngoog wan ñu boppam way na ko daf ñoo nëbb boppam wan ñu boromam nëbb ñu boppam wan ñu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Maodo moonu nëbbu boppam. waaw. wan ñu boromam lii leer na maam. Seydi Hadji Malick. ku fi gën a bëgg Seydi Hadji Malick. loxo yi ca kaw Seydi du des gannaaw maam. Seydi borom gaa yàgg Tiwaawan moom du seen loxo yi ca kaw li mu liggéey ci réew mi ku soxorul i ñaanul xam ni lii عيد الآلفة waaw ku loxo yi ca kaw mu nga juddoo ca gaaya Maodo moo raw ca gaaña lii leer naa ma ana soppi Seydi Hadji Malick loxo yi ca kaw Maodo moo nu nëbbu boppam wan ñu boromam lii leer naa ma seeni loxo ca kaw nangu naa tëkkale waaye bul dendale ci lii leer naa ma tëkkale dendale seen loxo تكاو ننو خجاراما سيد الحاج مال جاراما سيد الحاج مالك يا تكاو الحاج مالك جاراما jaarama Seydil Hadji Malick jaarama baarakallaahu baarakallaahu yàlla yàlla barkeel mu ngi noonu tabaarakallaahu xaaj Pape mbooleem ñi doon seetaan daal bég nañu fa tabaarakallaahu soppe yi bég nañ am di jàmm yi bég nañ téléspectateurs yi bég nañ fa tabaarakallaahu kon xam naa xaaj Pape Seer tabaarakallaahu bég nañ lool yàlla yàlla fay yàlla yàlla taxaw jéego yàlla yàlla def ko tabaarakallaahu euh, farg bàkkaar def ko fajuk aajo def ko yokkute ci zaahiran ak baatin ci barke yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw gi nga fi ñëw daal yàlla na doon yokkute ci yow ci lépp côté ak gars yi nga xam ne ñoom nga àndal tamit tabaarakallaahu ndax benn loxo du tàccu waaw te ñaari loxo mooy takk tubay waaye ñaari loxo mooy takk sër te fa tabaarakallaahu sama gars yi moom saa yoo kii côté bii rek ñoom ñu kii côté bële kon fa tabaarakallaahu yàlla na leen ko yàlla boole defal kon xaaj Pape Saer tabaarakallaahu dafa mel ne waxtu yi mi ngi jëm ci jeex kon dama lay bàyyi rek nga tàggoog euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo la doon seetaan tàggoog waa Jaxaay fa tabaarakallaahu tàggoo nag bu dul tàggatoo insha allahu taala. waaw ah, kay jërëjëf xaaji xalifa yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax fa tabaarakallaahu ci invitation bi wax naa ko sànq ndax waykat yi bëri nañ fi lool waaye nga taamu si ñun. Mm-hmm. dëgg yàlla invité ñu. Mm-hmm. ñu ngi la ciy sant bu baax. di la gërëm tabaarakallaahu di nag sant euh, téléspectateurs yi doon seetaan TP TV yëpp. Mm-hmm. tabaarakallaahu di am mbégte ci ñoom. di gërëm waa jaxaay ba 17 1 ba 19 1 ba 21 jaxaay gi yëpp tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm tabaarakallaahu ndax ñun ñi fa nekk di tag yonent bi foofu nanu nu yër nanu tabaarakallaahu di nuyu nag suñu yaay umu xayri faal mi nga xam ni moom it ci ñi nga xam te ne dañuy jàppale ci tag yonent bi ci la bokk ñu koy nuyu bu baax moom njabootam ak yépp ñu ngi mm-hmm. leen di ziar leen jox seen wàcc waay mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. di nuyu mbokk yeeg am di jàmm yi ñëpp rek ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax a baax di nuyuwaat rek sama yaay ja ca jaxaay mm-hmm. soxna Ami Guèye yaay booy nu ngi koy ziara bu baax a baax a baax yaay waayam maa bu baax a baax mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. nuyu première dame moom it soxna Aminata maa sha jox ko wàcc waayam kay nuyu ñëpp rek fa tabaarakallaahu ah di nuyu nag euh, waa Valda nga xam ni fa laay liggéeyee nga xam ni tey ji fala fala ma waroon fekk waaye ñu may ma permission ne ma demal ci émission bi. macha allah ñoom it leen ci sant bu baax di leen gërëm. di nuyu sama patron Cheikh Ndiaye. Mm-hmm. di leen nuyu bu baax a baax a baax ak waa département bi ma nekk yépp ñu leen di nuyu di leen ziar fa tabaarakallaahu mm-hmm. ah di nuyu nag samay soppe yee nekk ca pénitence ñoom mm-hmm. soxna waree. ñoom nday tuuti ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax. macha allah ak waa daayira ahibaahi rasulallah. daayira xayri wal baraka daayira ahibaahi Euh, Habiballah ñu ngi leen di nuyu daayira muxlisiina muxlisaat ñoom it ñu leen nuyu di leen ziara bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. fa tabaarakallaahu ah, di nuyu kenn ci ñun nag muy xaaj mm-hmm. Seydou si mm-hmm. xam ne ci moom lañ jaar ba mën lii ñu mën tey ba ku ñu gis rek sopp ñu ci yonente bi xaaj Seydou borom jaxaay xaaj Seydou si borom jaxaay ñu ngi koy nuyu bu baax moom it fa tabaarakallaahu nuyu nañu ñëpp daal tabaarakallaahu daayira xayri war baraka nuyu nañu bopp ba suuf di nuyu fa tabarakallahu muktafin asaarin abaay wal ajdaar bu sëriñ Moustapha Sy al amin fa tabarakallahu di leen nuyu bu baax di leen ziyaara ah xalifa nag bu ngeen ma ko mayee rek may jàllalewaat beneen programme bu nga xamante ni muy suñu programme mu daayira di am le 13 janvier fële ca jaxaay un insha ci seen lekk bi tabarakallahu suñu sëriñ sëriñ Mouhamadou Nil Moustapha al amin insha moo ci war a ñëw teewe ko muy tàkku saanu sëriñ Mansour si borom daara ci mhm. tabaarakallaahu mhm. ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokki jullit yëpp fa tabaarakallaahu daayira xayri baraka ñoo koy def fële ca jaxaay mhm. ñu ngi ciy woo mbokki jullit yëpp maa ngi nuyu ñëpp daal bi nuyu sama benn jigéen muy soxna yaa daba siis xam ne moom dafa sori ci man lool tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu moom it di ko jox wàcc waayam fi mu ni mi may seetaan ci youtube bi xam naa ni ñu ngi koy nuyu bu baax di jox waccu wayam di yemale fofu kaddu rek assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon tabarakallah aj Pape Seye bëgg nañ yàlla yalla fay ñi ngi nuyu ñep tabarakallah ñi doon top émission bi ci télévision bi ak ci youtube bi ñi ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax tay suñu gan mo doonon xaaj pap sey tabarakallah ñaanal ko yalla yalla deugalal ko may ko guddu fan ak wér wér la jaajeufal ko bu baax ci invitation bi ndax tamit ko koo invité mu ñew itam won nga ko jaajeufal ndax léeg-léeg nga invité koo xam ne daanaka day bàyyi yu bëri ñëw ci sa invitation. Hmm. kon nag kooku war nga koo jaajëfal te yéen ñiy tagg yonent bi macha allah bu ngeen nekkul ci liggéey bi rek yéen a ngi ci tagg yonent bi waaw kon nag tabaarkalla kon ni sañ sëñ Babacar waxee woon kon yéen ci loolu ngeen nekk moo tax yenn saay sax nit dina leen soxla fekk macha allah liggéey bi soxla leen wala nit soxla leen fekk tagg yonent bi soxla leen du leen mën a am. waaye tabaarkalaaw bi ma la ko waxee nga bàyyi lépp sawaat ci lool macha allah kon yow ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax a baax yéegal ne soppe yëpp bég nañ yéegal ne soppe yëpp kontaan nañ yàlla na yàlla fay tabaarkalaaw suñu Babacar bég nañ macha allah yàlla yàlla fay yàlla na yàlla taxaw tabaarkalaaw yàlla na yàlla uh, uh, gën leen a dëgëral ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam Serigne Souleymane bég nañ loolu macha allah yàlla na yàlla kontaan nuyu waa jaxaay rek yëpp comme ni nga ko waxee asaati ya fa nekk waaw oustaz Seex tabarakallah ñu ngi koy nuyu barki dem rek ñu ngi déggante oustaz Babacar tabarakallah ak Baye Thiam ñooñu nga xam ne ay asatis la ñoo xam ne ña nga ca jaxaay ñu ngi leen nuyu baax nuyu waa daayira Hibaay Rasul sëñ Abdou président bi tabarakallah soxna Waré ak soxna Nogoy ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah di leen ziar Serigne Moustapha Ndoye tabarakallah xaj dem ba mi nga xam ne moo koy way moom it ñu ngi koy ziar bu baax nuyu waa jaxaay yëpp tabarakallah ziar leen kon xam naa mbokk yi dañuy yamani foofu rek ba beneen yoon ci beneen invité insha allahu taala yoor yoor Seydina Muhammad mi ngi noonu waaw bu ñu yam ci seetaan ko rek waaye insha allah ku ko seetaan tamit abonné ci chaîne bi insha allahu taala moo ñu gënal ndax daf ñuy may doole ndax yoor yoor yoor bi di émission bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko moom moom lañ ko jagleel kon képp ku bëgg yonent bi rek war ngaa mën a fës fësal sa cofeel ci moom fësal sa cofeel ci moom nag mooy nga dugg YouTube seetaan émission bi waaye boo ko seetaanee ba pare itam nga abonné ci chaîne bi kon fa tabaarakallaahu ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokk yëpp di jaajëfal ñëpp tabaarakallaahu xaaji bëgg mbay maa ngi koy nuyu baax nuyuwaat DJ Ibrahima DJ Aruna nuyu tele téléspectateurs yi ñu doon seetaan tabaarakallaahu di wax ne in uridu ila islaaha mastatatu wa ma tawfiqi illa billah ali takulu in wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu beneen ajuma ci beneen invité insha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaa leen gën yaa leen mën seede leen seede leen loolo acca yàlla la jox ma yaydaan yàlla la jox ma yaydaan yàlla la jox ma yaydaan yonent jox la isa baydaan cheikh def la ci xoolam seede leen seede leen loolo baydaan nga baynal masri baydaan

tu es le marabout le plus élégant le plus éloquent le plus historique sri Babacar simani lorsque tu sors dans l'impasse tu es la source des deux mers la charia et la haqiqa ah. rahmat masaya baldara alhamdulillahi hada shaykhu rabbaa mooy xayrul wujuudi llazi a'laahu mawlaa atanaa lal xilaafata yooyo yooyo yooyo naa lal xilaafata yooyo yooyo yooyo man de damay laaj ana taalibe Cheikh yi nalal xilaafata way Maam Samba Joob bokku taalibe Cheikh nalal xilaafata mer Fatou Njaay Joob